إلى سرسارة إلى سرسارة إلى سرسارة قد قصدوا سيارتي فارق دارني أو زارا ci turu nag sëñ mu Kara Mbacké mi nuy xoole sëriñ ko asuloo te mat ko sëkk di ñaan yàlla saa borom guddal ak fanam te ko ah, dëkk bi nag sëñ Moudou Awa Balla àndoon na ak sëriñ Kosastulo ak ñeneen doon dem Louga jaar fi woolu sama baay Mor ak sama baay Magat ak ñi mu bokkal ñoom ñëpp mu ne Mor mu ne ko Mbàkke mu ne ko damaa bëgg fii andi fii ji daara sama baay Mor na ko loolu de bu soobee yàlla rek mën naa nekk te nangul naa ko mu ne kon danaa danaa danaa bu ma demee Louga ba wàññi ko danaa fi jaar daal na gees na sëriñ Koso est-ce que fii bu ma la fendee da nga fi toog mu ne ko bu ànd ak sa rek danaa fi toog loolu la sëñ mu daa bala wéel daal ko fi indi bi mu ko fi indee nag indi na ko ku ñuy wax sëriñ kan moom la fi jëkk indi muy jëwriñ ànd ku ñuy wax Cheikh Mbay ak Abdou ak ku ñuy wax Abdou ak Yolom Diop ñu yor daara ji euh, bi ñu yoree daara ji itam. boo mën nañu xam ci ban waaw ban ban ban date la. waaw 1954 la 1954 la sëñ Koso daal di taxawaay taxawaayub. sëñ Modou Awa Balla ndax sëñ Modou Awa Balla ne ko man mm, Kosso da nga maa bëgg nga gàttanul ma taalib yi nga xam ne dañoo dëkk Njigéej ku ci man bu la gisee gis na ma nga gàttanul ma taalib yi dëkk Njigéej ak ba Njàmbur ku mënta agsi ci man bu ñëwee ci yow rek gis na ma loolu mooy sababu sëñ Modou Awa Balla indi fi sëriñ Kosso Astou Lo sëñ bi nangu la ma waxoon ne su dee àndee ndigal danaa ko jëfe jëfe na ko ba mat sëkk diirub li fi nekk. lépp luy waru garub dëkk ak luy bëgg-bëggub dëkk sëriñ ko Astou Lo defal def na ko ndax booba bu nu bayee gerte ba mu ñor dañ koy jaay libaane yi naar yi nekk Daaru Musti waaye sëñ sa dal di fexe loolu mu dañ dal di fi indi ab secondaire boo xam ne sëñ mu daaw balaa ko doon joxe nu koy jënd benn at ñaari at ko Kosso dem Dakar gisanteeg président Senghor mu dal koy may ab coopérative 1964 ñu dal taxawal coopérative bi wut ay adhérents ah ñu dal di sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax dematul fenn lu may di jaay sunu penc. nan ngeen doon dundee jamono ji ngeen maanaam bi ngeen sancee dëkk bi ndox amu fee yu demee noonu nan ngeen ko dundee ak mettit wala yu demee noonu. waaw boobu itam ndox dafay jafe woon lool ndax Daaru Musi lañ daan dem rooti ji fa ñaari wiir ñaari mbuusi wiir. wala nu dem ndoyen wala baar ga ca teen wëgg ba waaye bu sëñ mu daaw bàlle ñëwee loolu lépp daa tox andi na fi ab seetar ne seetar boo xam ne dafa nekkoon dafa guddoon lool mu saxal nu ndox moo xam ne bit bu seet kenn ku nekk mu jox la ay paani ndox nga koy dundal sa waa kër di ci togg mu boole ko li ñuy toggal li ñuy jox dong yi ak li ñuy bëgg li ñuy bëgg jur gi waaye bi sëñ ko so gisee loolu itam ba mu dem ba indil nu ab yombal ci jaayukaayu gerte gi ba loolu loolu daal nuy yombal lool lool lool lool ba lépp jàpp yombal nu mu dal cee teg nag wut fu nu amee ndox dal na jëkk bënn forage bu ndaw bu ñuy wax puits foras booba dañu doon dañoo wëgg ndox mi ba mu jege nuy wëgg ay goj ndax dañ ko xëcc ba mu jege nu koy wëggee kii goj loolu sëñ bi daw ñaari at ñetti at dindi loolu dal ni wutal forage spécial waaye sëñ ko ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaan bu baax taggale na noog dem daaru wutim ndox tàggale na dem daaru jaayi gerte tàggale noog ak lëndëm ak nu ak leer miinal na nag boppam ba ñëpp miin ko kon sëriñ Kosso noo ngi ñaan yàlla saa borom ba na ko ci dara mu sëñ Mourada Ball doomi sëñ Tuubaa joo gis li ci ëpp ñëw nañ fii ku di sëñ Fallu gis naa la fi loolu nag la sëñ bi kon ne coopérative bi mu daal ko yaatal ba tund wépp maag latir ak ma jaar nu wër tund wépp wax leen ko kenn ku nekk dem kontaan ci lool lool ndax booba coopérative bëriwu fi ndax booba benn coopérative bi nekk Daaru si ak benn coopérative bu nekk Barga ñu leen ñetteel 1973 1974. parce que man tam mën nañu xam ba xam sëñ Touba bi muy ñëw di sañ si tamit ñi mu àndaloon ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ci dëkk bi ñu koy sañ. wax naa la ko da nga koo déggul waaye dama wax na la. bi muy ñëw. baatub sëñ mu daaw a bala ko fi indi waaye da koo boole woon ak ay dong yu yu yu yu yu dëgër ñu ñëw nekk ci wetam. mooy wax naa ku ñuy wax sëriñ kan mi ngi dëkk Mbacke wax naa la ku ñuy wax Abdou Xaye mi ngi dëkk yedd fu ñuy wax yedd wax naa la ku ñuy wax Yolam Joom mi ngi dëkk Daaru wax naa la mën jaay fayit goñu ca bokk mën jaay fayit goñu ca bokk ak ñeneen ñu bari mënu lim seen mooy koy rek waaye mbooloo ko boole ñu ñëw am na ci te li des itam même fii tamit mu mel ne am na fi wàccuwaay boo xam ne benn barab boo xam ne maqaama lañ koy woo maqaama. waaw maqaama da koo defaroon. Mhm. waaye sëñ Moulaw Balla ko sanc si bi fi sëñ Moulaw Balla ñëwee dafa dal ne moo koso ak mboolem ñu mbokkal baay ne ñëw gi ma ñëw fii nag damaa bëgg mu daj mboolem doom ji ma jur naa la gan si da nga jàpp bis ma la def fii ñaari fan. nekk ak sëñ Kos Astuloo sëñ mu daaw bal nag bëggoon na sar saara bëggil koo xam ne kii da mu jëmi jamono mu ne koso bi génneel génne oto bi muy raam ndànk day daw ndànk bu ñuy séene oto bi mel ne dawut bu ñëwee ba ci buntu kër bi mu toog ñëpp ñëw siyaare ko mu toog moom xool leen ba mu mu neex ko booba dana am lu mu nuy wutal delluwaat Daaru Musi euh, sëriñ Koso yëmut ca bi mu defee a pare mu defaat fi beneen pale boo xam ne bii mi ngi ko tabax 83 1983 80 83 82 la commencé ba 83 moo àgg palais bi nag mboolem ku di nit ku nitu nitu nitu diine ñëw na fi seet si fi sëriñ ku mboolem kuy waa Góor ñëw na fi seet sëriñ bi mboolem kuy di taalibe ñëw na fekk fi seriñ bi sëriñ bi ànd ak ñoom ci jàmm ji lépp sëriñ bi nag. moom dafa dafa bindoon noonu ndax la ko ne woon la si bu jafee nga yombal moom yombal nañu lépp daal di ne nag ubbi dafa ko ay ci mboole dëkk yi ñu wër yëpp. dëkk yi ñu wër yëpp boo nee sëriñ Kosso rek ñëpp daw ñëw xéewal gi nag xamu man maa xam fi mu tàmbali waaye xam fu mu jam ci lépp nag ci lépp ci lépp même ndogu yi ndogu yi nga xam ne mu ngi koy def tey. benn gàtt la ko defee woon Daaru Musi la ko tàmbalee waaye bi muy ko ñaareel fii la ko defee Sarsara bañ ko toggee ba pare baara baa ko doon togg ak yolam Diop ba mu pare benn ah, quatre cent trois boo xam ne moom la jënd woon Louga a koy wax El Hadj Thierno jaay ko ko moom la ñu yóbbu Daaru man ak Latir ak Madiar ak sëñ bi ak baara ba ak yolam noonu la yóbbu Daaru ñu yóbbu ko sëñ bi ne ko ndax moos ndax moos kosa day dara du yombu la Koso mu ne ko Mbacke mu ne ko ak saxaar sax dana jomb la ndax lu baax lu ne de am nga ko waaye dara mun tey jàll tey jaaru ci yow lanti noor nga yow Koso lanti noor nga dara mun tey jàll tey jaru ci yow aha noonu la Koso sare rek lépp lu baax rek jaar ci moom lépp lu baax rek jaar ci moom ñu koy sant bu baax di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fayal إلى ثرثار قد خسدوا سيارتي فارق دارني أو زارا